كريم بما ولا زيارة غوفرنر نو ولا نيو أقبال مني غبوكال لكي في جوت لي كادو يو خامل ميغي بايكو تي سيني عبد الفتاح جي يالا كو يالا ياغال تي ويرال كو لي سيرين بي جوتا واخ نك واخ موم مان نا ياغ waye deg amna fumuy yam dafa mel ne bés bi jar na mat na jar na te mat naa waajal léeg-léeg mbir jar ko te du ko mat léeg-léeg mu mat ko te du ko jar waaye yaar yëpp suñu boroom dajale na ko ci bis bi nga xam ne moom la ñuy waajalal eh, Sëriñ Faliilu Mbàkke ndax bu ñu ko seetloo xóotal ko mel na ne yaar daje na ci yaari mbir mel ni mbir mi mooy wàllu diine ñi nga xam ne diine rekk moom lañuy ñuy xeñtu fu ñu ko dégg wutali fa lii sëriñ bi jëkk jotli jot na lépp ak geneen wet goo xam ne wàllu société lañ koy tudde sëñ Fallu mi nga xam ne moom la ñuy waajalal bisam e, ñaar yëpp la dajale woon di ko dund ba yaar yooyu ku ci féete woon yëgoon nga sa wàll wala sëñ Fallu sedd ci boppam mas naa taxaw fii ne moom mooy Sénégal Sénégal nag yaar yi nga xam ne moom lañ koy gën a xàmmee ba foo ko gis sam xel na yar na ci senegal ndax miin nga ko ci dégg mooy garab gi ñuy wax guy ak gaynde guy ku ne xam na ne lépp njariñ la ndax des na jël xàncam ya defar ci ay buum ñun ñu dëkk ci kaw gi xam nañ njariñam bu baax di ci yew suñu jur di ci rot di ci yew it kuñ ci bëgg luñ ci bëgg yew luñ ci bëgg yew waxuma kuñ ci bëgg yew waye luñ ci bëgg yew waye waaye itam wuyam wa boko ko dañ ca fekk buy ku xam notari xam ngeen ne buy du ko wuté waye kerem gi it ku ne ci àll bi liggéey mënu ko ñàkk ndax kàdd mi gën a am yaakaar ci ker ci àll bi moom du taseeg ab taw fenn bu koy gis rek daal di jëri waaye su boobaa nag guy mooy jël relais bi su jàmbaar nekkee ci waar wi ba sonn mu ne ko kaay dallu ci sama ker gi jógaat dellu ca waar wa daana fajal nit aw mar ndax nit toog na ba tey ndoxum toolam jeex xamul fi muy jëm xel na yar ci lëm mu na ci guy mu yéegloo ca ku sawar root ca def lam ca bëgg a def lépp ci ndox kon guy ku ko jël ne man Sénégal laa te Sénégal guy bokk ci njariñi kese nga societé mun la ñàkk waaye gaynde it ñiy demal Sénégal ci feneen sax di xëccoo ji tur boobu lañ leen di wooyee gaynde ku ne xam na ngorom ndax xam na li tax yàlla bind ko xam na lim ko sedde gaynde du xiif mukk ba xelam dem ci fortaatu am ñax di ko lekk waaye day toog xaar yàlla rek ba lu yomb romb ko ndax man gis naa ko ku tayal la sa warewut noona du dem di wuti waaye day toog di xaar yàlla ndax diisaay bee tax ak ni ko yalla bindé mu xam ko yek ko te wu ko wayé day nek balu rombu yomb rombu ko rek mu dox nak na ñaadam ñaadam japp ko jareñu sa bayal ko fa ñaanen du ko du ko denc mukk jëmele bu gën xam ndax muntu yek bay denc wayé su si jariñoo ba nopp xam na ni am am lañ wax sa so amé lu ëpp walu kenen na nga si mu bayal ko fa ñeneen kon ku la du sonn ba tax ko wuti wutin woo xam ne gënal gënut waaye it du tooñ du tooñ kenn am na ko dëkk boori weti Kédougou nee na ma ku jëflanteel rek kookaa ko bëgg a jaar sàkk te moo yaay nag su ko defee kon ku jël màndargam guy laa ak gaynde laa wax dëgg yàlla société bi laa ñàkk société bu mënta nekk a jàng saa su nekk ana nu ñuy jànge ngor nu ñuy jànge doylu nu ñuy jànge xam sa waaye ni ñuy jànge jariñ nit ñi it te bàyyi leen ak la ñu loolu bis bi làmboo na ko kon sëriñ bi sëriñ Abdou Fatah ñu ngi ci woo jullit yëpp ñu bokk ñëw taataanandoo ci njariñ yooyu nga xam ne moom la sëriñ bi ëmb ci biiram di woo mboolem jullit yëpp ak fu ñu mën a nekk ak waa réew mi ak fu ñu fi mën a nekk euh, bàyyiwut kenn bàyyiwut fenn bàyyiwut ñenn rawati nag ñi nga xam ne moom dañoo nekk ci biir réew mi te kenn ku ci nekk ni ko mbokk mi waxe léegi sëriñ Fallu doon na dund ak ñaari nit ñaari xaaji nit benn xaaj bi njariñ lam leen amaloon taxoon na ñu yàgg koo ñaanal mu yàgg fi bañ mën koo fay ndax ay gor lañ gor day fay waaye beneen xaaj bi it ñoom euh, tooñu ma leen waaye dañ ne woon yàcc rek ni ñaan mu yàgg fi ba yàgg leen a jariñ ñaar ñooñee nag seeni ñaan nangu na ndax suñ fallu jógu fi ñoom ñëpp nag ku ci nekk it am na njaboot kaar-kaar ba kenn ku ci nekk gëm na ni am na bor bu mu amee suñ fallu ni ko mbokk mee waxee léegi kon nag sëriñ bi nee na ku mas a jàpp ne séq nga sëñ fallu wala sa mbokk séq ak moom mu ngi lay ñaan nga jokk kóllëre googu wuy ko ci bis bii nga xam ne dañ ci jàngat dund sëñ fallu gu barke rek waaye ñi nga xam ne it ñoom la fi euh, monsieur le gouverneur toogal mi ngi koy ñaanit fu mu war a àgg mu àggale ko fa xamal leen ne it ñoom it njëriñul sëñ Fallu mënu leen a teggi te mu ngi toog di xaar li koy xamal ku ñëw ak ku ñëwut daal mooy li muy séddale ma nga mu teg ne saa bu xoolee seen mu nekk fa mu xam ne diw ñëwagut bu xoolee mu nekk mu jóge fa nag mu xam ne diw fa mu ko tegoon la mu ko joxoon jël na ko ba dem waaye dana dana jafe ci moom loolu nag ku ñëwut mu di la yóbbante naan joxal ma kee ndax euh, cërub xej ji xooj ji da koo jël saa su nekk نيلن فتلة واليد مغلوب دوم جباخ جوجو رجي بارا مامتام يلا بول لين بير مامت دوغنا سي بير لول دا دير بين في نيك ليم غات غات ليم في جارين سي اوني كين خمول نيم تولو تي نيو نا كوني ماكو ديفال نانغام لو مونتون ام سيغ بي دي نيو نيب يالا نان جامو delloo leen ci jàmm euh, code boobu ñuy wax naan code suñu fallu ku ñuy wax suñu aafe mbay moom la ko suñu fallu waxoon euh, ba mu amee li ñuy wax brevet moo jiitu permis de conduire daa ñëw wan ko ko ne ñu ma doon euh, gëstu ba xam mën na maa dawalam de dañoo ma ko jox mu ne ko ma seet mu jox ko ko mu xool lañ ci bind lépp ne ko waaw yow de jàmbaar nga ndax wóolu nañ la waaye xaaral ma dolli la loo xam ne xëy na bëggoon nañ la ko wax te mënuñ la ko wax ñii dama ñi ma la koy wax ne ko sooy dawal wata da nga naan du ju toogaay bu dëgër ne nikk jàkk ne nikk ak say loxo say yoxo loxo mooy benn waaye yoxo mooy ñaar ne jàkk fi nga jëm Eh, bu ne taj nga ne teg bu ne yang nga ne yow boo ne yow ba jub ab lunk-lunk mooy ab virage nga tegg sa tànk te màcc ci sa wetu nday jox boo ko génnee ba mu jeex takk mën ngaa dellu ca la nga nekkoon ku la ne piip ci ginnaaw maag yow ko man nee ko yow bàyyi ko mu jàll <laughs> am ñu wax ne daw ndànk dal ndànk waaye kuy daw ndànk du dal ci kaw dara yàlla na yàlla indi ñëpp ci jàmm delloo leen ci jàmm